alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah euh, wirdo sikar bari na njëriñ am na ku ne sikar a baax day far bàkkaar te bàkkaar nekku ci eh, wax nañ ne sikar dafay dàq seytaane te ku nekk xam na ne seytaane euh, ñun euh, war nañ ko mere ndax teg nañu yu bare ba sax ñun tam sëf nañ ko lu mu deful léeg-léeg nga gis ko def càgganeem di wax ne seytaane la fekk nag moom moom la dégg de sikar dafay gërëm loo yàlla te ngërmaane yàlla ku ne soxla nga ko sikar day dindi jàqare te boo ko weddee rek temps yi ngay am angoisse yooyu nga xam ne da ngay mere ba mere ku la deful dara fekk la géej ngaa tudd yàlla wala sàgganee nga teewlu sa wirdu mais boo ko teewloo rek surtout nga yokk ca yeneen ya da ngay mujj neex deret si day tax nga neex deret si kar day tax nga neex deret loolu mën naa bàyyi xel mais ñi nga xam dañ naqari deret ba boo boo boo leen sa otorombo sax ñu ñu ñu ñu yéene ko nangam loolu loolu fàtte yàlla rek la kar dafay indi mbég ci xol ku bugg bonheur da ngay sikkar ibnu qayyimil jawziya moo ko wax sikkar day leeral kanam ak xol lu mët a kii la léeg nga gis loo xam ne da ngay xam ne borom gëj naa sikkar sikkar day dëgëral xol di dëgëral yaram boo xëy na médecins yi ñoom duñ ko weddi parce que xam nañu rapport bi nekk ci yaramu nit diggante maanaa ak yaram parce que du ne rek feebar rek wala ngàdd rek mooy tax nit néew doole léeg nga dégg benn information rek la nga amoon ci doole yëpp nga ñàkk ko maral jotaale mën na indi sax ay crise cardiaque mais sikar ku ko miin loolu du la dafay indi wërsëg et très important sikar day indi wërsëg surtout nag certains sikar waaw jarul nga ma xool du la ci wax dara sikar dafay tax sikarkat bi am wegeel xam nga wegeel ak itam li ñuy wax xorom te nga daf koy am sikar day tax e, daal nga am mbëggeel ci mbindeef yi ak yëf yi maanaam yow nga bugg mbindeef yi ak yëf yi doo leen yéene lu bon te loolu mooy roxo diine mun nañ ko firi nag ci lu gudd mais jaru ko sikar dafay tax nga miin fuuglu yàlla te nag mu rabbu nii dañu ne ñetti station yu mu yi mooy muraqaba mushahada maarifa booy waaxu jëm ci yàlla muraqaba fuuglu yàlla mushahada janoo maarifa xàmmee kon nag luy tax ngay fuuglu yàlla baax na si yàlla moom tabaarakalla fa la ñu ñëpp rawee ñu ñu raw sikar day indi nga bokk ci ñiy dellu jëm ci yàlla bu mbir mi tàngee xam nga problème la boo xam ne Euh, lu ma a bàyyi xel la ndax am na yoo xam buñ fàtte yàlla am na yoo xam buñ jaaxlee dellu ci yàlla min sikkar nag dafay tax boo jaaxlee ci yàlla ngay dellu du mbir mu tuuti nag sikkar day tax nga jege yàlla sàgganee sikkar day tax nga yëg ne sori nga sikkar day ubbi bunt bu mag ci maarifa mooy xàmme yàlla loo gën a bare sikkar nag gannaaw boo xàmmee di gën a xàmme sikar day tax nga weg yàlla yan yi doo ko ñeme ndax teeg sultaanam day dugg ci sa xol am na ku doon wax benn xaritam ne ko man de alxuraan ak may bëgg a yàqal àddina lu ma bëgg a def rek gis aaya ju ma ko tere mën ne ko santal yàlla xanaa lu ma bëgg a def ci lu bon nga wax boobu ne yi muy digle kay bari na lool sikar dafay tax yàlla itam tudd la ndax nee na boo ma tuddee ma tudd la bu du toon dara lu mooy loolu ibnu xayim nee na loolu rek jar na ngay tudd yàlla nga di ko tudd ndax moom tuddam yërmaande la nee sikar dafay tax dafay maye xol bu dund te boo buggee xàmme xol bu dund ak bu dee rek seetal yenn euh, action yi kenn du ko mun fekk si xol deewoo da ngay seet rek man gis naa nit koo xam ne day xëy suba ba ngoon jot amul benn ittee lu may emploi wu diw ma yàq ko xam nga lii xol bu dee rek ko mun par contre nag am na ñoo xam ne fu ñu dégg emploi bi waaj a yàqu dootuñ nelaw te defaruñ ko xat alima unaasin mashraba nee na ibnu taymiyata cheikhul islam ibnu taymiyata nee tudd yàlla ni mel ci xol comme ni ndox mel ci jën la ibnu taymiya nag personnalité la boo xam ne war nañoo taxaw tuuti pour dindi équivoque parce que dafa am ñu ko exploité exploité dundam bi ak position yi ba nga xam ne dafa mel ni mooy gangrène bi nga xam ne fu suuf fi jóg wala sëriñ rek moo ko war a ngadd fekk du noonu Ibn Taymiyya doon na contre mais ay faux marabout la daan contre ne moom ci boppam sëriñ la am na sëriñ am na silsila loolu ñu bay Sénégal dañ leen ko nëbb waxuñu leen ko Ibn Taymiyya moo daan wax ne suñu ma emprisonné maa ngi ci xalwa bu ñu ma déporté maa ngi ci siyaaxa bu ñu ma rayee dama shahid dara du ma yàqal dëgg waaw sijni xalwatun wa nafi siyaaxatun wa qatli shahadatun kooku kay mënul bañ nit yàlla yi ndax ñoo bokk maqaama nee sikar day dàq xoomaagu xol ibnu qayyim al jawziya moo sikar dafay sippi ay bakkaar ndax nit ku am bakkaar yu bari dafa am ay montagne yu dox sa diggante ngërmaane yàlla nee na dafay tax mel ni yow danga nga xàmme yàlla ba muy neex yàlla nee na bu naqaree man tam ma fàttaliku la moo tax bul toog rek ba yëfi ne këtt na jonn nga dam di ñaan yàlla déedéet dee ko ñaan fekk dara xewagul waaw xëy na xëy na primaire sa doom amul problème mu jàng c'est rare au Sénégal waaye nag université ngi fii surtout deuxième année yooyu surtout sax yenn première année yi surtout ba nga demee ba nga xam ne yenn kenn mënu ko su boobaa nag ñaan baax na mel ni ñaan léegi bi mu nekk ci primaire dégg nga nee na sikar dafay musal nit ci mbugalum alaxira te jullit foog muy xalaat alaxira ndax saaba ba nee na dégg na yonent mu ne kenn deful la gën a mën a musal ci mbugal ka tudd yàlla waxoon naa sànq jabaru abu darda ñi miin tudd yàlla ci temps yonent bi euh, darda doom seen doom dafa feebar abu darda diggante mu am soxla tukki mu ñibbisi ci guddi umu darda teeru ko te wonewul dara ne jaaxal na ko abu darda ne ko naka suñ doom ji mu ne ko dal na dal na ko deenale ci bu wax mais bugut a wax ku tukki ñibbisi ci guddi te xam na ne ku gëm yàlla waaye nag gan la gu tukki woon ba ñibbisi jabaram di ko teeroo sa doom dee na loolu xëy na conséquence yu bëri ci te nit day am xel bu du toon dara sax mën na namu jabaram te xëy na bu ko nee dee na xëy na booba nameel day yàqu te loolu ci gën a tuuti mu ne ko alhamdulilah comme dal na ma ngay nelaw mu fanaan ba bërset bi muy julli fajar ndaw si ne ko yal na yàlla màggal sa yool ci suñ doom dar daa deewoon na dama la ko bañoon wax bi mu ne ko alhamdulilah nee na sikkar dafay tax nga dal ànd ak sa nee na sikkar dafay tax temps bi nga waroon dépensé ci jëw ak rambaaj yaa ngi nekk ci lu ko gën mooy tudd yàlla man gisoon naa genn góor ci kaw Jóob la sant ñemi moo ko sàllal dafay amee kurusam bu séenee kuñ naan day weddi sëriñ bu ko waaju jubee rek mu commencé naan wérdoowut wala mi ngi julli ci yonent daal mais du wérdo kii bu waa ji ñëw mu nekk hmm. bu nee hmm. ba mu dem mu delloo kursam ne xawma yu lu may wax ak moom sikar place bu malaaka yi ceew te loolu am na solo sikar dafay tax ku nekk ak moom nga wàll ko lu baax waxoon nañ sànq ba malaaka yi ne diwa nga fa te bokk ci mu ne qu'importe mais nag yërëm naa ko ngir ñoom da ngay dem nag du fa bëree bëri bëri bëri dama ko uti woon par exemple sikar bu fekkee ne da nga boole wéet fàttaliku yàlla jooy bokk nga ci yàllay keral bés penc ci bés ba ker amul sikar boo ko saxoo ba tax sax nekkoo di ñaan soxla yàlla ne ma jox la lu gën la ma jox ñay ñaan sikar pourtant moo gën a yomb ci jaamu yàlla yi yaa latif yaa latif yaa latif wala nga ne yaa allah yaa la yaa allah wala yaa rabbu demet am na ci boo xam ne sax moom boo ko waxee suba quatre-vingt-dix fois euh, quatre-vingt-dix-neuf fois dong quatre-vingt-dix-neuf fois benn ci turu asmaa yi mais kéemtaan la kéemtaan la ci jàmm rek ngay nekk <laughs> bu ngeen ko laajul du ma ko. laaj nañ ah? ko turu yàlla wi ñu naan ma jiitu bu fekkee ne bés boo jeexalee sa wirdo rek digal naa ko ku bëgg nga yaa ma jiitu yaa ma jiitu yaa ma jiitu juróom-ñeent fukki yoon ak juróom la ci nekk yëpp ci yiw kenn mënu ko saraafi mais la ci gën a yomb mooy ci ci ci teraanga ngay nekk de ah ngay nekk de waaw ah? léeg-léeg yu ne nga gis ci tudd yàlla ya yonent yonent dig ci nit may ma tuuti may ma tuuti yonent digée na ci sikar loo xam ne sax jo waxuñ ko ci yenn jaamu yàlla yi mooy xadisu abu hurayra jëm waxoon ne ku wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu hmm? lahu lmulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir boo ko waxee téeméeri yoon ci benn bés da ngay am mel ni ku jënd fukki jaam gore leen yàlla bind la téeméeri yiw seet ci sa carnet jëf téeméeri caay-caay mu effacé ko jégal la ko te itam daf lay protéger ba bés booba seytaane du mun a yegg ci yow te kenn deful lu gën li nga def lu may ko def xanaa lu ko ëpp léegi nag ñu laaj laaj gu éternel bi xam nga gaa toujours gaa ñi toujours ñi nga xam ne dañuy dàqee suufiye yi dañu naan ñaan gu yonent bi prononcé wul ci dundam rek yow boo ko fi indee bidaa la déedéet mbir mi gën naa yaatu loolu li ci preuve mooy li mooy ne benn bés ci biir julli xam nga dañu naan sami allahu liman hamida ah xam nga ñii ne rabbana wa lakal hamdu kenn ci jullit ñi ne hamdan kasiran tayyiban mubarakan fii kenn waxu ko ko moom moo ko wax noonu rek musu koo dégg biñ sëlmalee yonent bi ne ana ki doon wax wax ji waa ji ñemewut mu ne ki doon wax baat yi ci julli gi kan la waa ji ñemewut dafa foog ne def na njaaxum mu ne déet dama gis rek yàlla yebal malaaka yi ñuy njëkk njëkkalante kana ko ci njëkk a bind xamuñ lu muy pesé yàlla ne bind leen ko rek noonu maa xam lu muy pesé ñu déggee ca ne waa ji du muy wax baat yi tàgguur yonent mi ci biir julli sax te yonent daf ko ca saxal waxal ko la ca nekk ñu déggee ca ne yonent lu mu wax mooy ñaan nga mais nag du ne lu mu waxul rek aaye na ko ndax jàngale na fi ñu war a jaar benn l'autre phase mooy nit ku jàng ñaan goo xamul lan la waxuma muy arab te déggu arab waxuma loolu mais imam malik nee na am na ay talsam yoo xam ne nañ ko ràbbee yow ñaan nga xamoo làng ba te xamoo itam ka ko ràbb ku muy waxal ndax nee na wa maa yudrika laallahu shirkun maanaam léegi par exemple benn benn nit kuy jaamu xërëm ràbb ci làngam ñaan gu muy ñaanee xërëmam ñaan gu muy ñaanee xërëmam bu ko defee yow nga jot ci xamoo ban naa la ngay ñaan xërëm ba du loolu ñaanal loo xam boo ko xamul nga laaj ko lu muy firi bu ca lu dëppoo te tawxiid nekkee nga bàyyi ko